lu baax ni maa koy defar ma ne la boo bëggee defar diw danga koy jàng maîtriser looy defar lan la di di di mën a lire xam ne lii lan la lii lan la lii vitamine lan la moo ngi ni cinq mille lay def si ma xool cinq moo ko def cinq la non six de benn bi gaan bi laa ko cinq moo ci des moo ngi nii nga koy nga sangoo mu lay nànk nànk di la rocci nànk nànk amul teg der bii du la teg der piling bi da koy sangoo du la teg der piling baa ngi nii ñu wax ndoxu piling baa ngi nii xool leen xool leen ndox mi ndox piling original bi nii lay mel xool leen